lu jëm ci wàllu santé lu jiitu santé aussi accès eau électrique eau bi aussi mooy lu jëm ci wàllu ndox ak euh, lu jëm ci wàllu piste aussi comme mën nañu wax noonu route ak euh, éducation bi yooyu yëpp dafa nekk ay points yoo xamee ni ñun Saly Aérodrome dañuy jànkonte ak ay jafe-jafe yu bëri ci ci yooyu te ku xam yooyu points yooyu xam ni mooy dund rawatina aussi ñu nekk ci benn commune boo xamee ni ci àdduna bi yëpp foo jaar foo tourné dañuy wax ni maire boobu mooy le meilleur maire. bi may may commencé aussi di wax ñiy théoriser loolu di koy wax amel nañ àq population boo xamee ni àq boobu kenn xamunum toll nañ ko jégalu askan boobu nga xamee ni ñoo ngi dund ci commune boobu ci jafe-jafe yi. comme ni ma limee jafe-jafe yooyu muy ndox benn bi jiitu mooy li ñu fàtte waxale muy KMS 3. KMS3 seen euh, tuyau yi ci buntu sali aérodrome ci suñu tali boobu la jaar route boobu noonu léegi-léegi sax bu ñuy def seen test technique yi ndox bi dafay indoon ne foofu ba duñ mën a jaar foofu te ñun quartier bi ci ay teen la ñuy naan mu nekk quartier boo xam ne nii ku ñëw croisement Saly xool li la féete droite fi ñuy wax ni foofu la ñu def garage moderne bi boo ko gisee da ngay jàpp ni quartier bii nii ci gis-gis moo nekk quartier yi gën a neex ci àdduna quartier bi manqué wul dara bien vrai que ni rafet na ci gis-gis c'est parce que ñi ko dëkkee ñoo di jàmbaar def ay kër yu mucc ayub waaye ki nga xam ni moom mooy la l'autorité euh, munici municipale bi muy le maire li ko war que muy war a accompagner population yooyu mu jëm ci ndox dara amul ci biir. bu dee ndox boobu may wax noonu si c'est cent presque soixante-dix yi amuñu ndox si sur si trente quinze yi ñoo indil seen bopp ndox kon amuñu ndox ni nga ko waxee ci njàng bi. njàng bi aussi quartier bi li muy rëy rëy ak li muy yaatu yaatu benn école moo nekk foofu ñuy wax ci cité des enseignants ku xam cité yi xam ni ñoom en général bu ñu bëggee cité bu ñu jël espace bi muy nekk dañ ci programmer wale école même ak yenn ay espace pour aération ak yu mel noonu benn école boobu moom moo nekk ci quartier bi ñu wax sali Aérodrome te ci école boobu noonu il y trois abris provisoires maire am na lu mu fa def xañ na miire la mais yeneen classes yi sax ay partenaires di ci gërëm mbay Fall boobu noonu moom mooy ki indi partenaires yi construire classe yooyu noonu. insécurité bi kenn waxu ko c'est parce que dañ ni garage moderne mais garage boobu noonu dañu gis ni bi balaa ñu koy def dañu waxoon dañuy def garage c'est pour dégager li nga xam ni moo am foofu anomalie bi am foofu noonu muy euh, vargaynde yi foofu ni muy occupé Cross Marcel xam na ni. embouteillage kese la insécurité bi kasoor yi nekkoon Dakar fàqmaan yëpp dañuy ñëw foofu bu guddee ñu dugg ci biir koñ bi di agressé nit ñi. ba léegi ñoo ngi foofu kenn xamul garage lañ fa def kenn xamul te occupé nañ espace bu yaatu ci commune Malekounda buy jarat lu bëri xañ na ñun jàpp nañ ni manoon nañu servir lu gënoon nekk yittewu population yi kër garage su fekkee lii ñu gis moo fi nekkagul kon foofu soxla nañ ay leeral yu gën a leer que boo xam garage lañ ñu defal wala lan lañ ñu defal. bu passé fofu ko wax garage dama koy faral di wax biñ ne dañ ko immigré ku wax garage wax moderne wax route tay dañu am ben route bu jógee croisement sali dem ba keur Samba geli tronçon bi jógee Mbour geli autoroute à mu nek euh, ben boulevard bo xamé ni tay li ko limu jakar lol rek man na wax ni au minimum ya a 2000 wala lu ko ëpp de magasins des cantines warna meuna genn fofu lo xamé ni warna meuna apporter commune bi des millions des millions loolu yëpp nekk jàmbat boo xamee ne tey ci dugguñ ci nawet mais oto yi dañuy ngiroo à tout moment te nawet ñëwagul bu ñëwee yaakaar naa ne foofu kenn dootu fu mën a jaar. maire maire ku ko wax ameel nga ñu àq foofu laa wax léegi nii. su doon ni yoon mu ngi doxee ni mu war a doxee bu ñu la porté plainte yoon day dal sa kaw sa parce que da nga tooñ euh, population wu lëm. ñun gisuñu suñu bopp ci li ñuy wax maire maire vraiment.